teneffüsler öldü. Elhamdülillah. Evet. Bunu kumaklı. I think that was the same. If that's the kattan gi neex neex gi ñu. waaw lépp li ma ci gën a yëg. waaw foofu moom nga ko suuf si dafa gis. bokk rek suuf si dafa joor suuf si ban la. waaw. guys can go. Really? I give up. I can't. Like, you know, I just. Okay. li may faral di wax rek ñemewu ñoo sàkk féete ndax kilifa bi féete eh, ci mm-hmm. waaye nag am nañu sañ-sañ ci sàkku ñaan mm-hmm. loolu nañ xam nañ yéen a ngi saa suñu toogaatee rek dañu ne sëñ sëñ bi nu mu gën a bëree rek <laughs> nu mu gën a sàkk rek boobu soxla nañ ko ñoo wax ak saa su moom nag sëñ Moustapha it ñoo ngi déggante léeg-léeg mu sànni ma ay doj yu xaw a tàng nag moom sànni doj bi gën a mën waaye mu ngi mu ngi jàppale bu baax waaw baax man sànni xeer nga baax xam xeer lu waaye ñu ngi koy ñu bu baax a baax a baax waaye mi ngi ciy jàpp bu baax discrétion bu mag sax. Mm. waaye ñu ngi jàppante ak yow depuis premier jour bi mu ñu andi ba fii ba léegi daal. colère mm. bi ñu koy doxal ñu koy doxal. su manqué léeg-léeg ci ñun la moom. waaye xam nga jamono bi day bu nekk parcelle boo xam ne euh, te moom patron nga. suuf euh, suñu tool yi ngeen jëlee. ba patron nga donc moom day koy koy nemmeeku mu bëri. waaye daal ñu ngi ciy jàpp. waaw ñu ko ciy gërëm bu baax moom ak ñi mu àndal ñëpp. mën nañ ko waaw xeer yi mën nañ ko mën nañ ko loolu daal mooy tànk yi sëñ bi ñuy vraiment di gën a gën sant daal ñaan dañu guddal trop ndax dañ seen emploi yi jamono bi moom ñi leen jiitoo leen ñu trop waaye daal kontaan nañu trop ci li ñu li ñu ngeen ñu ci mhm. yaatal bi daaw ci nëg bi si bi ñëwee fii lañu mm-hmm. fanaan mm-hmm. ñu dalal ñu benn ñu mm-hmm. yàlla lu mu xat-xat may na ko ñooy see waxtaan nañu guddi gi waxtaan nañu ko ay heure du balaa ñu yeewee fii nag waxtaan nañu

maa ngi la waxoon ni la Macky Sall dàq la pétrole moo dàq dëgg la lim soxla nga am faram-fàccee bi ne jamono. nga waxaat loolu ñu soxla moo tax. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf. mooy sama kër gi nag yàlla. jërëjëf xaju xaju fi ne. ci ngoon mu def émission ji ne jamono. wax ni dara moo ko tax.